muy loo xam ne da koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen a tere te mooy ñi nga xam ne ñoo aju ci yoonu murit waaye di ko jëmee nag ci mboolem ñi bokkal lislaam ji yëpp bi may yaqbalu nasihata min axihi muslim di ko jëmee ci mboolem ñi nga xam ne ñoo la bokk réew mi te ñu bokk dëkk ci biir réew mi muy loo xam ne tànn suñu borom la kon sëriñ bi neen mi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp itam ngir xam ne li nga xam ne àdduna sépp ñu ngi koy tiit ak ragal muy mbas mi nga xam ne tàbbi ci biir àdduna si ba yàlla def mu agsi ci biir Sénégal ñaan suñu boroom mi nga xam ne moo ko teg nit ñi ndax loolu itam nañ xam ne na ma ko wax woon ci poroxaan jooju ci lay dellu siwaat yàlla wax na ci alxuraan ni doomu aadama lépp lu ko dal rek na xam ne moo ko teg boppam zahara alfasadu fi lbari walbahri ma kasabat di naas li yuziqahum ba'da lesi amilu la'allahum yarjoun kon fitna ji saa su ngeen gisee muy balaa yàlla wàcc ko ci kaw àdduna rek suñ borom lam ci jublu mooy bëgg ci newutoon ci yoon dellu siwaat delloo lépp yàlla ndax fi mu toll nii la suñu kilifa gu baax ga daa wax Cheikh Saliou Mbacké yàlla suñu borom rek képp ku fàtte rek da da neex waaye bu la ko rek nga delluwaat ci moom kon loolu mooy li amaat luy si xam baax di si ambiloo laxalu ngir joxoon kon nañ xam ne bu kenn ku ci ne na wéet rek dellu ci borom xam ne gëm ne lii ko dal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 ndax wabtaxi fi ma aataaka allahu daara laaxirata wala tansa nasibaka mina dunya kon booy jaamu yàlla da ngay jaamu yàlla ba mel ne dañ laa wax ne ëllëg ngay faatu comme ko ni ñu koy faral di waxee waaye wala tansa nasibaka mina loolu mooy da liggéeyal adduna ba mel ne da nga fi sax bu faaw kon adduna ak àllaaxira lu ci ne ci am lu ci suñu borom santaane Serigne Touba waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne leen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 waaye li nga xam ne nag médecins yi ñu ngi koy santaan santaane ci wàllu cet loolu nañ xam ne lislaam ko njëkk a santaane bu ngeen gisee lislaam euh, waxtu juróom yëpp day santaan nga yeesalu njàpp lépp bëgg mu set la barab bi ngay jullee sax faw fa fu set la war a doon kon cet gi na ko ñëpp bàyyi xel ngir xam ne euh, wérdi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne firra minal majzumi firaaral asadi nee na wopp ji ñuy wax ngaana na ko daw ba mel ne kuy daw gaynde kon loolu rasulullahi moo ko santaane la ci waxoon ci poroxaan ji laay fàttaliwaat nee woon na euh, Abu Ubayda bi nga xamee ne Seydina Omar mi ngi doon seeti euh, armam bi nekk Cham far yàlla ba muy bëgg dem ñu yëg ne mbas xew na ci dëkk ba دفا ديسو صحابي لاج لين با خم نيو ورا ديف لوم ديسو نيوم ام كو ген بن حديث با خوني سيدتنا عائشه مكو اندي مو وخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخنا لو ملني بو خوي سي دك كوم فك سي دك بو فا جوغي بو فا كين باي كوي ديم فينن كوم فا فك تام لا فا دال نان فا توك لولو بوكاي سيت با ني خم خم يوسو لولو boo xooloon tey ci àdduna fi mu toll ñu yëngu ci wàllu médecin nattuwaay yi ñuy wax loolu dara jiitoo ko ci tey àdduna sëpp yaa ngi dégg ba ci màkka yëg ngeen ne omra ga fan yi tëj nañ ko kon nag euh, boo demee ci réew tubaab yi itam dégg ngeen di ci xew kon loolu itam ñu xam ne suñ borom mooy doxale noonu àdduna kon ñoom itam nañ leen ci diglu cër bi leen ci yàlla joxe itam ñu delloo leen ko ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax ndax yëg nañu ba mu duggee ci réew ba tey ñëpp def nañ ko yitte ndax wéer di nañ xam ne jombul kenn jombul nit ku baax jombul nitu adduna ndax ca yooyu jamono Abu Ubayda moomu ba Seydina Omar waxee ñoom bañ wax ko ne ko na toog Abu Ubayda da ko wax na ko ndax dangay daw dogalub yàlla mun na ko damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla moom moom yàlla def na ca ci ci ci mbas la faatu Bilaal ibnu Rabaah ci mbas la faatu euh, Muaas ibnu Jabal ci mbas la faatu ñooy ay saxaaba lañ te saxaaba kon xam na seen daraja kon loolu kenn Sëriñ Tuubaa wax na ci jawharu nafis na is laysa ahadun maasuman min al marad yàlla amul benn mbindeef moo xam ne musal na la ci jàngoro kon loolu natt la bu yàlla teg mbindeef la ñu ci war kon li jiitu mooy dellu ci yàlla ñaan waaye nag saw bu saaxir si nga xam ne suñ borom doo ko santaane ndax eh, Sëriñ Tuubaa wax ne yàlla wàccewu fi ay malaayika ñuy lijjanti nit ñi la fi indi ngir ñi bu fi ay malaayika nekkoon ci suuf kon mu yebal fi ay malaayika ñëw di leen lijjanti qul law kaana fi l ardi malaayikatun yamshuuna mutma'inniina la na alayhim min as-samaa'i malakan rasuulan walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan kon ay ay mbindeef la fi indi nag indi leen ci kaw suuf ngir ñuy lijjanti mbindeef yi moo tax mu santaane na atiiu llaha solo atiiu rasula ulil amri minkum ki la ci wàllug adduna sax di kilifa lim la digal ak lim la da nga ko war a topp ci loolu loolu lislaam ko santaane kon loolu ñoom itam cër bañ ci am nañ leen ko jox te diglu leen ci te ñëpp gën a wattandiku rek lépp loo xam ne euh, dana mën a tax jàngoro ji di wàlle te li ci lépp nag ñu delloo ko ci yàlla te xam ne suñ borom ni ko tege waxtu waxee ne dana jeex rek dana tàggoo ñëpp di fàttali itam nag euh, Serigne tuba euh, ñaan yi nga xam ne daana ko ci santaane ndax xasiid ak wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu فهاكم هذه الأبيات الشفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع العداء يا ربي بالمصطفى المختار من مدر شفيع أمته في البدو والحدر عليه صلي بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضر إلى آخر القصيدة قصيدة googu نكو نيب مورا الشيخ مهود Mouhamadou سنتاني ونكو ديم بجوح na ko démb ba jox ci ndigal ne خشيدك مدة وشفاء خم جن سرين توا خم جن لا تخرج مدفكو بابا أس سوهن فاتي إسا واحنا نيجي ساهر سا مرون تخو سيبي مرخ سرين توا تالي خشيدك قوي نيم كوي دجال نيب يدو خو جانغ غير يالله مسوي نيجي ويردي بشر دولة كواتي دمو يبقى أنا wa kaana lu mel ni dafa massa am ci Mauritanie mbas mu jot ci ki dugg fa am ku gént ñew ci Serigne Touba ne ko dañu yegne amna am na mbas mu dugg ci bir rew mi bimu xewé nak da nga salif xasee wa kaana xaqan ko jangé re mbas ma taggu ñep Serigne Touba di génne ci bir génn xasee wa kaana xaqan mooy mu tooy xib ma tàggoog ñoom kon nañ boole saw bu sahir ak saw bu baatin ndax lu ci ne dafa am inna makanna lahu fi l wa aataynaahu min kulli cheyin sababan fattabaa sababan bokkatan abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne lii Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Mountakha def nag da ko doon ci رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع وقت القرآن لينفق سوء ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله كيف كوحنا تانيك سمرم ديكو ديمبولا كون ليتم نان خمنا لي تي جيتو موي ديمبولا انت اك اندو نيب نيك وين ساي نيك آه، وين آه، بوك بين بغ بغ فيها با تاغو مو نداخ ورو فيك ديني واخني سوخلا بودي نيار دا فيك اك وير نفا ndax fi mu toll nii àdduna ji boo ko doon seet xew-xew yëpp kenn talatu ko ñëpp ci lii lañ jëm ndax kat boo amut ndax euh, mbas wax nañ day jur bekkoor ci biirum réew loolu nag dogalu suñ borom la waaye li ci war doomu aadama ci gerte na ko nag war na ko def Seex Mouhamadou Mountakha nag euh, Serigne Touba xam ngeen ni ci gerub 14 18 bi nga xamee dem na ba réewum France jaaxle ci ay soldaar tam am ci ndigalu borom nag ci ay saw bi xóotu xóot ci de Serigne Touba joxewul ay soldaar bañ demee ba xaalis France di bëgg daanu itam Serigne Touba dafay yëkkati ci jamono téeméeri junni muy xaalis bu bari nag ba xaalis France daanuwut Cheikh Mahmoud Moustapha xam ngeen ne ca ñam jamonoon teeloon eh, ba ñuy xëccoo mooy yëkkati xaalisam jox leen. Cheikh Mouhamadou Fadil dégg ngeen histoire bi umput kenn diggante Lamine bañ ñëwee di xëccoo dafay yëkkati xaalis jox leen Lamine Lamine Gueye jël Senghor delloo xaalisam ne ko li may bëgg bu moo ko wutee dinaa leen jàppale seen jumaa ji Cheikh Abdoul Ahad moom itam xam ngeen ne fu jamono masaara gi fii daana jënd ay camions yu tonni ceeb ak dugub di ko séddale ci waxuma waaye ci biir réew mi ba mu daj ba ci këri yi kon loolu lu ñu fi fekk la Cheikh Abdou Khadim Mbacké itam naka jo naka noonu noonu la ko daa defee Cheikh Saliou Mbacké itam yéen a ngi fàttali ko Sonacos ba mu fi tàkkee xaalis ba mu yëkkatoon joxe ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké itam ci xilaafam defoon na lu mel noonu ba ci ki ci mujj nag di ak Cheikh Sidi Moukhtar yàggut bi nga xamee ne mbënd mi dañ na Sénégal mu yëkkati jéego bu rëy loole itam lam si jubloon rek mu yëkkati milliard ngir soññeeku nit ñi kon nag loolu sëriñ bi foofu rek lay waxe ginnaaw boo xamee ne yëkkati na la tàmbalee daal mu ngi diggee ñëpp lépp lu ci waay mën def ndax diis na ci loosu kenn donte ñoom sàkkuñ ko ci moom nag kilifa du toog di xaar bañ di ko wax waaye xam na ne senegal gépp ak njabootam lañ mooy ñi ci doon taalibe Sëriñ Tuubaa ak ñi ci doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa ñëpp njabootam lañ ñëpp la jaboote bu sañoon ñëpp nekk jàmm kenn bañ a nekk ci fitna ndax alxuraan kat wax na ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab wartandiku leen fitna ndax du ya li wolof di wax ay du yam ci bopp borom ku jàpp ne danga ci mucc itam yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi caw waaye nag nañ xam ne du lu ñu daw nag نه نعم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت فخال لهم الله موتوا كن ديا كن من كدا كن من كدا أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بفكر دعاء تابع عن أي خنت يخد سين بران فكنا ليج سيبير خنت مرايلا كن لليب أسوأنا وعليج سوا بساهر نجنا بند يلا تيا لو كيري شو ميتهم لني وقتها كل تنبون كده ما يام يام ركشي loolu waaye lii sababu saahir sam yàllaa ko santaane te bëgg àddina doxe noonu Sëriñ Tuubaa leer noonu ci lu bari ci li tax suñu borom tubaab yi mu dénk leen àdduna kon loolu itam nañ ko xamee noonu kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla eh, nit ñi gën a bàyyi xel gën a wattandiku ngir xam ne jàngoro ji jombur kenn kenn ko xam ne mën ngaa garanti sa bopp ne da nga ci mucc itam amut yàlla képp ci mën musal it kon nañ dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sarax jéggoo te dimbaleen di suñ biir loolu mooy ndénkaane sëriñ bi mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf